mais père keroog dama laa gis nga indi sa ñaari doom kenn ki di Lac de kenn ki di Balla Gaye 2 keroog ñu gis la euh, nga indi Balla Gaye 2 mais avance làmb ji sax dama gis coow lu bari am ci stade bi maa ngi teg fii ci mukaay doo fi teg loolu naka la demee woon. waxoon naa loolu ci benn chute man naa am wax bi may waxaat du niroog wax bale ma juum ci mais nañ ma jégal xam ni wax bale moo tungoom wax bi may wax rek ni. stade bi man tell naa ci wax wax ni chinois yi dañu juum ñi leen tabaxloo juum ndax chinois yi bi ñu ñëwee pour tabaxal ñu stade dañu waroon dem stade Demba Diop seetaan si làmb dem stade de l'Amitié seetaan fa làmb soogam ñëw mën nu tabaxal stade ndax boo demee Chine réew mu yaru lañu ndax population Chine bare nañu bare goo xam ni yar rek moo leen jik ñoom seen xeetu làmb boobu ñuy def dañuy toog à zéro mètre ak lutteurs yi mais kenn du jog ñu jàppee nu noonu kuréel kii stade bi ci wàllu plan tabax ko niñ ko tabaxee mu nekk stade boo xam ne am nañ ci fierté trop mais erreur bi ci am mooy sénégalais yi ñoo ko tabax chinois yi ñoo ñëwoon di joxe seen xam-xam mais lu fa nekk ab sénégalais moo ko defar kon nañu woowaat benn entrepreneur. neur bu Sénégal mu ñëw xool stade bi état bi defaat ci même bu doon benn six cent millions wala benn un milliard ñu liggéeyaat ko ndax stade bi liggéey bi baax na mais fi mbër yi di wàcc stade bi dafa xat te am na noo xam ne buñ ko liggéeyul bis dana jot làmbaam te du egg ba nga laaj ma leneen. mais tey jii buñ ko doon bu ñu doon réfectionné waat stade bi naka nga xalaat ne noonu lañ ko mën a defee ba ñun ñi nga xamante ne ñooy dund làmb mën cee gis suñu bopp. xam nga sénégalais yi du ma ni dañu réew mais ni ñuy dunde làmb daf ëpp sport bu boolewul warul tàggale man maa ngi wax ci benn chute ma ni nañ ci def ay ipen wala ñu kuule ay poto yoo xam day am benn hauteur bi ñu gri ko ba nga xam ni amateurs yi duñu am accès ci mbër yi dinañu mën a seetaan et ñu dagg ko ay parti ndax pour làmb di tas ba pare jàmm di am euh, parti 16 yi ñu dagg ko ay créneaux yoo xam ni groupe bu nekk fa ñu nekk dañuy am benn porte dañuy xalaat rek ndax ci réew mi ñu nekk la su làmb amee yenn problème su amee dañuy ubbi par van bu van boobu demee ñu ubbiwaat beneen van même pas une de temps ñëpp dinañ ñibbi seen kër mais làmb ji dafa jóge plus bi jóge nu jóge mbër yi bis mën na jot jaaykatu kanet yi dugg ci biir stade bi jaay nit yaakaar daf koy naan te du ko naan daf koy jël pour mbër mi joge ko bëgg-bëggam ak mere mbër mi tax mu xaañ ko am na gaañu bu muy gaañu ñu jël ko indi ci médecin bi fekk amateur yi dagg nañ seen billet ñu ñëw xool ko ni kii mënatul bëree làmb ji yàqu kon matukaay yooyu laa bëgg président Macky Sall jël ko matukaay yooyu laa bëgg ministre des sports jël ko matukaay yooyu laa bëgg CNC bi jël ko matukaay yooyu laa bëgg président du Diagne Diecko mi nga xam ni moo jiite amateur yi mu jël ko.